Euh, jërëjëf euh, ñu gis ni nga xam ne rek euh, taxawee woon nga ko ci xeex bi waaye tamit nga dund ci loo xam ne tey jii ay fàttaliku la mais metti woon na lool lool lool naka la demee woon. waaw sooña affaire bi metti na d'abord pour vous dire mais c'est pour vous dire que d'abord ñun il faut que nit ñi comprendre que ne ay sénégalais lañu rawatina nekk ay jeunes. Mm. bu ma nee Sénégalais lañ rawatina ay ay jeunes lañ ça veut que ñun dafa am lu ñu gëm ñu xam c'est quoi le sens de la responsabilité pour tout citoyen dans ce pays au-delà de sa euh, man je suis un personnel de Dakar Nav parce que je suis technicien naval moment bi nga xamante ne président Ousmane Sonko mi ci tolof tolof bi man personnellement ma jàpp ne li situation bu ma nekk nii. dara warul ko lu dul situation politique pour faagagal un adversaire politique te ma gëm Ousmane Sonko ma gëm projet bi ma ci laa demande un mi con comment dirais-je un mi congé hmm. pour quinze jours ma ñëw à Ziguinchor sama teewaay bi à Ziguinchor d'abord c'est pour consolider la présence des patriotes qui veillent au domicile du président Ousmane Sonko. Mm -hmm. pour empêcher force de l'ordre yi ñu ñëw teg donc en tant que patriote et en tant que responsable et en même temps aussi en tant qu'un homme qui est épris de justice mhm. ma jël sama responsabilité ma lancer un appel à l'endroit des patriotes moo xam ñu nekk Sénégal moo xam ñu nekk bitim réew. appel bi lan la woon vidéo la woon boo def. non appel pour euh, ñu ñu mun a. def levée de fonds. waaw pour jàppale. ñu doon hmm. fanaan ko Ousmane Sonko ci wàllu dund. Hmm. que ils avaient besoin de se nourrir. et il y avait pas de moyens. Hmm. donc comme on s'est dit que la fin justifie souvent les moyens. donc ci laa lancé levée de fonds boobu patriote yi wuy si ma jël levée de fonds boobu ma demandé permission comme ni ma leen ko wax au niveau de mon entreprise pour ñëw présenter suñu participation comme ñun mun nañu nekk sur le terrain sur mais mun nañu contribuer mm-hmm. ci effort de combat bi ñu ne effort de résistance bi suñu frère patriote yi def bi ma ñëwee j'ai vu quelque responsable ma présenté wu moo wax leen li samay tànk ñu rafetlu ko après ci la suñ benn patriote bu jigéen bi def benn séquence de vidéo pour juste rek rafetlu sama teewaay bi acte bi malheureusement comme jamono boobu nit ñi dañuy faral di jël ay vidéo di ko tasaare wala ku jot di vidéo bi rek ngay tasaare ko à mm. travers réseau social bi mu nekk benn kii boo xamante ni dafa viral. Mhm. sur les réseaux sociaux moo moo moo. mooy vidéo bi mi ngi fii mhm, xam naa ne dinaa la ko wan. Mhm. alors euh, bi loolu amee comme ni ngeen ko xamee euh, dans toutes les corporations am na ay patriotes yi nekk foofu. un ami m'a appelé pour attirer mon attention. comme quoi que ne je suis parce que à travers vidéo bi ñu gis mu ne ma il faut faire très attention ne ko d'accord soo ñaa noonu laa nekkee ci biir Ziguinchor ci kër Ousmane Sonko ci mhm. périmètre bi mhm. apporter lépp loo xamante ne ration alimentaire la moo xam xar la moo xam bee la mhm. jot naa dem ba ci séras bi sax jënd foofu ay béy ak ay xar ñu rey leen def ko ay morso morceau indi ko ci siège bi mhm. dem ci marché bu kot jënd leen dund lépp loo xamante ne ravitaillement la mhm. te nit dina ko soxla mu indi ko suñuy frères patriotes au niveau du siège mhm. léegi après après acte noble boobu pour ñu gën a ñëw ci li nga xam ne rek euh, moo ci gën a metti muy exil bi ak euh, arrestation manqué bi euh, bu ñu ñëwee vidéo boobu nga xam ne rek euh, li nga li la ci dugaloon mooy maanaam euh, ñëw indi sa sa participation ci li nga xam ne rek mooy projet bi ñëw taxawu leen jàppale leen euh, financièrement ci yi nga xam ne ay dons yu ñu lay jox ñu dema dema dema dema ba vidéo boobu tax ñu lay recherche après rek naka la demee waaw bi ma demee ba tollu foofu mhm. j'avais je me suis que Sénégal lañ nekk quoi rawatina nag Afrique dañoo am suñu réalité donc ñàkkuma ay am ay kilifa ci laa dem ginnaaw yàlla kilifa yi ma am yaakaar te ma jàpp ne ay nitu yàlla lañ mm-hmm. ma ñëw jébbalu ci ñoom pour ñu jéem ma aar sur tous les plans mm-hmm. je pense que vous allez comprendre là où je voudrais dire mm-hmm. donc bi ma defee loolu ba nga xam ne léegi man am naa yaakaar ne lii dina dox si laa ñëw gën a dëggal sama bopp loolu taxul ma génn Sénégal donte sax ñu ngi may pisté mais taxul ma génn dëkk bi maa ngi ci biir dëkk bi. mu wéyal samay activités politiques maa ngi woon à Simbandi Balante mais je faisais c'est pour vous dire que je faisais la navette mhm. de Ziguinchor à Sindian à Deyane Goudomp tous les villages qui mhm. sont sur la rn dama doon wàcc foofu. Hmm. chaque village di wàcc di wàcc jàppee ko foofu Kolda. Hmm. alors loolu yëpp tax na nguur bi fi nekkoon ñu ne kut ko kut il faut kii ñu teg ko loxo yàlla nag moo fi nekk yàlla moo ma sàmm mais comme ni ko sama frair bi waxee hmm. man yaakaaroon naa ne buñ ma jàppoon ñu ngi doon wax ay ñoom Pape Touré ñoom Amidia ak ñeneen ñi ñeneen man sama détention bi xam naa ni muy gën a metti donc bi loolu amee mhm. euh, jour bi nga xamante ne jour bi ñu defee plan d'action suñu village bi jour mardi la c'était le premier le premier août si la ñu taal suñu pënu baare tali yi ci la militaire yi ñëw jàpp ma yóbbu ma ci camp liggéeyloo ma foofu ci biir ñax bi pendant quarante cinq minutes mm-hmm. ci jamono boobu ci la booy yi daal di fippu dem ci mairie bi briser les fenêtres les portes de la mairie loolu sax moo gën a envenimer waaw pour ma libération mm-hmm. moo gën a envenimer la situation bi loolu amee mardi mercredi jeudi mais avant jeudi même la veille du euh, le, le, le matin le jeudi avant loolu euh, la gendarmerie avait préconisé mon arrestation le mercredi à partir de deux heures du matin parce que jamono boobu dañuy jàpp ne tout le monde était au point mort ñëpp di nelaw malheureusement ñoom bi ñuy ñëwee malheureusement pour eux mais heureusement pour moi ñoom bi ñu jógee Samin préparé pour ñëw dugg si suñu village bi rek mu daje ak taw boo xamante ne musul am taw bu métti mm-hmm. léegi ñu xam ne condition boobu mënuñu def seen opération bi ci la ñu dem à Goudomp le matin de bonne comme ni ko kii waxee à 6 heures du matin si la ñuy ñëw mais laata ñuy ñëw taxaw sama bunt kër gi d'abord comme ils ont l'habitude de faire dañuy encercler sa kër ba pare mm-hmm. nga xam ne léegi yow boo rëccee rek ñeneen yi mm-hmm. léegi yow yaa ngi dal ci ñeneen alors man j'avais cette intuition la alors euh, j'avais pas, d'autant plus que j'avais pas un sentiment de peur. Mm -hmm. Je me suis préparé psychologiquement que lii dara dina fi xew donc amul problème je l'assume noonu laa nekke 6 heures du matin bi ñu ñëwee fekk avant ñoom ñuy yegg si man je communiquais avec un frère au niveau de la diaspora notamment en France. Mm-hmm. bi ma ak kooku ci la dugg ci toilette bi parce que moment boobu. c'est un moment de la chaleur dafa mm. tàng mm. donc ma jël sama xaftaan bu weex bi sandi ko sama kaw boobu j'avais juste un caleçon sur moi ma jël sama xaftaan bi dugg ci toilette bi le temps que may rek pour dugaat ci biir néeg bi rek ma dégrir oto bi rek ma xam ne ñii c'est la gendarmerie qui sont venus pour m'arrêter ci laa def marche arrière bi nu ñu gën a gaaw gaaw fekk man tëb naa ci miiru ginnaaw bi vidéo yëpp ñu ngi fii mm-hmm. bi ma tëbee dawuma paniqué wu ma ma dox tranquillement kon ni ma ko njortee effectivement noonu la demee mhm. ci la ñu posté ay milite ay gendarmes yi autour de ma maison alors bi ma ñëwee ak sama comportement am dox tranquillement comme si rien n'était ci laa yem gendarme yi ñu ngi taxaw armé jusqu'aux dents mhm. parce que li tax ñu armé parce que on les avait dit c'est un pratiquant d'arts martiaux il est ceinture noire ma troisième dan mhm. donc bi ngeen di dem ci moom ngeen xam naka ngeen di dem ngeen préparé looloo tax gendarmerie bi ñuy ñëw noonu ils sont armés jusqu'aux dents taxaw bi ma ñëwee yegg si ci gendarme bi ma nuyu ko mu xool ma ak sang froid mhm. mu xool ma xam naa ne dans sa tête mu ne ne du kii mais ñoom jot nañ jël sama photo à Facebook bi suñuy adversaire nga eh, ñoo leen jox suñuy photo mhm. ci la ñu identifier suñu baax yaakaar ne léegi fi mu ne nii bu ñu ma gisee rek dana ma kii alors finalement loolu yëpp mujjul am ci laa leen romb bi ma leen rombee ma def cent pas deux cent pas ci laa yokk sama pas bi ba léegi dawuma mhm. noonu laa toppee ba génn terroir Sénégal diggante sama village bi ak fi ma waaw ma dox ko diggante sama village bi Simbandi Balante ak Guinée notamment Angoré ça fait juste si je ne me pas vingt cinq kilomètres comme ça mhm. donc dama dox ba yég Guinée mhm. notamment en Gorée et j'avais la forêt te ko xam la commune de Simbandi Balante xam nga ni ngeen c'est une forêt dense danger yi ci nekk noonu laa doxee ba yegg mhm. fi ma bëgg yegg alors bi ma yégee foofu j'avais les pieds enflés parce que c'était difficile parce qu'il y avait des herbes épineuses et tout et tout alors bi ma àggee sama njaati bi xam na ne état bi ma nekk nii ça ne va pas. mu ne ma dugal nga sangu ma sangu jox ma ndekki ma ndekki. ndax ndax am nga ay obstacles yoo dund ci yoon bi 25 kilomètres euh, du xaw na sa kan. waaw effectivement am naa ay obstacles yi ma dund. bëri na parce que déjà quand j'étais en dans dans en pleine forêt dama réer carrément. da nga rëy xamatoo xamatuma sax fan laa jëm mais maintenant dans la tête je me suis dit que y a un village qui est juste à la frontière muy madina Peul donc comme ce village là se situe à ma droite donc bàyyil may jéem a léegi su may dox rek may gën a penché vers la droite. Mhm. alors noonu laa def ba yàlla dimbali ma juste à la sortie du village ma gis kër gi ma xam ne euh, c'était vers les coups de parce que man maa ngi jógee 7 heures quarante cinq mhm. donc euh, dama dox ba yegg kii nu mu tudd sax dina Peul presque à 7 heures 28 mi mm-hmm. vous voyez donc euh, bi ma yéegee village boobu après ci laa jël yoon bi ma xam ne léegi fi mu ne nii jeune ne suis dans le terroir sénégalais mm-hmm. donc ci laa dox tranquillement avec la conscience tranquille dox ba ma yegg 11 heures 25 mm-hmm. chez mon tuteur à Ngoré alors bi may ki bu may romb sax les riverains suñ ma xoolee dañuy xam ne kii bon il y a quelque chose en tout cas il y problème mm-hmm. mais man aussi pour tromper la vigilance de ces riverains la damay ne xaaral ma dagg xobu ay garab comme c'était j'étais parti dans la forêt chercher xam nga ay remèdes affaires yooyu ma mm-hmm. dagg ay xob feuilles médicinales affaires yooyu te ko sama loxo mm-hmm. comme ça bu ñu ma gisee rek dinañ ne ah kii xam naa ne jaaxlewul amul benn problème léegi pro deuxième boobu premier obstacle la réer bi ma réer ci biir àll ba ma retrouver piste bi ma dox ba mu waree léegi diggante Sénégal ak Guinée ñëpp xam nañ ne on est un pays frontalier il les policiers les douaniers qui sont sur la frontière mhm. alors bi ma yegsee j'avais pas de pièce d'identité ak ni ma mel nii je ne suis pas guinéen mhm. dégguma olof su ma demee c'est fort possible Euh, ñi stoppé ma ñi laaj ma fan laa jógee ak condition yu mel noonu bu boobaa dinañ xam bon je me suis dit que euh, loolu su amee rek c'est fort possible ñu jëbal ma nguur gi parce que tellement que je je ko disais que Ambalo ak Macky Sall c'est des amis mm. donc ci laa jàdd ci biir kii bi ñoom seen nañ ma mais biñ ma gisee ak xobum kii rek après ma jàdd may jéem a def semblant di dagg garab noonu après ci laa con ci laa leen contourné. xam naa ne ci lañ dañuy jàpp ne kii guinéen la rek. dafa ñëw rek witt ay kii affaire yooyu ci laa leen contourné ci ginnaaw ma dugg ci léegi bi ma àggee sama njaati comme ni ma leen ko expliqué mu bàyyi ma ba ma dal après ci laa jël portable am ma lancé un petit message à l'endroit de mes frères patriotes et ils ont réagi financièrement. ñu taxaw ma j'ai un ami que je remercie de passage il faut que ma remercier ko bu baax parce que bu duloon ko dina métti trop ci man encore une fois mm-hmm. mooy Karamo Sama qui en France c'est un patriote il travaille à l'UNESCO moom moo woo général des forces armées Bissau Guinée Abdoulaye Ba ma koy remercier bu baax a baax mun na ko j'ai un ami kii dans le pétrin mi ngi seen terroir bi numéro mi ngi nii woo ko nga jokkaloo ay jokkalante ak moom taxaw ko. waa ji woo mu présenté j'avais pas voulu décrocher. parce que ak vidéo bi tamit amoo benn track euh, vidéo lancé appel euh, du moment que vous êtes recherché et amoo amoo benn track pour euh, ragal a def vidéo ndax ñu mën la mën la jàpp. non awma benn ragal Sonia. j'avais pas fait la vidéo mais j'avais écrit juste un petit message. poste pour yónnee leen maa ngi ci problème. gendarmerie ñëw na pour tànga mais rëcc na alhamdulilah. Hmm. alors ñu ma war a jox samay numéro numéro boobu ma jox leen pas tout le monde. Hmm. mais pour vous dire que j'avais pas un sentiment de peur au contraire sax dama gëm lu may def. Hmm. parce que dama jàpp ne li may def nii bu fekkente ne doon dëgg sax amaana neneen lay demee noonu. kon donc je suis sur la droite ligne donc j'avais senti la fierté en ma ne amul benn problème yëfu góor